di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla gën ko fee yàggal lool ba yàlla àggalee lépp lu mu naal ci liggéeyal ko maamam ju tedd ja di ziar bu baax a baax a baax it Cheikh Abul Baraka nga xam ne mooy kilifa ak eh, kër gi ñu toog teeg toog nii di ziar bu baax a baax mbokk yi fi teew yépp ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel wala nga ñuy jàkkaarloog ñun di am mbégte it ci tëj teg eh, di ànd ak yéen ci tëj teg eh, jëf wala activités yi ñu doon def ci gàmmu gi mu mel ne waa kuréel liggéeyal ku tedd ki ñoo ko daan ñoo ko tàmbuli ren mu mel ne mënees naa wax ne mubaarakul ibtidaa yi waaye mënees naa wax ne rek maymunul intihaa yi ndax fa ku tedd ki jóge woon dem gànnaar day mel ne foofa lañ teew foofa lañ toog nii mu mel ne kon tàmbule gi fi sëñ bi tàmbulee woon tukkeem ba jóge fi dem gànnaar moo tax ñu bëgg cee barkeeloo it tëj tëj Euh, activité yi nga xam ne moom la ñuy def ci weeru gàmmu yi mu mel ne ren lañ koy doog a tàmbali mu jataay boo xam ne dañ ci ànd ak Serigne Mourtada Sylla mu war a jàngat lu am solo macha allah loo xam ne sëriñ bi moo ko def muy am mbind ci mbindam yi wala xasida ci xasaayidam yi ñu koy wax jëzbul xuluub li àllaamil guyub mu mel ne xasida ak jëzbu moom la war a jàngat nit ci sëriñ Touba tàggee sallallahu alayhi wa ci wàll yépp nag. ñu doon def ay waxtaan yoo xam ne bi weer wi teroo ba léegi ñu ngi koy def tey jii di mujjantalu jataay bi ñu ciy waxtaane xasida gi nga xam ne moom lañ war a waxtaane muy jësbul xulub li àllaamil xuyub sëriñ Touba def ko ñu di ko jàngat suñ kem kàttan ni ko sëriñ naa waxee léegi rek dañuy njëkkanteeg waxtu wi xasiida gi buñ ko waxee ci arab jësbul xuluub li àllaamil xuyuub xëj ci xol yi jëme ko ci aji xam kumpa yi maanaam xëj ci xol yi jëme ko ci aji xam kumpa yi daa mel ne daal baat bi loolu lay firi ci wolof euh, defoon nañ ci sax doon nañ ci góorgóorlu ba defoon ci gëstu boo xam ne 2015 ba léegi lañ ko jotoon a bind bokk na ci li nga xam ne gëstu woon nañ ko ci xasida gi moo di ne ci mujjantalu sëriñ bi la ko sëriñ bi mooy bi xasida jës bu jës bu gii ne ci gii tasaaroo ñu xam ko ndax am na ñu naan sax ñaar la woon bu njëkk ba feeñu tasaaroowut waaye daal lu man di xew mooy bii nii nga xam ne mooy bu siiw bi ñuy jàng ci mujjanteelu sëriñ bi la bokk na ci liñ ci jotoon a xam mooy dañ déggee ko ci sëñ Abdourahman mu sëñ bi Xuduus nee na xasida gi amoon na lañuy wax tarjamaan dafa am lu raar loo xam ne boo jàgg boo yàggee xool xasida yi da ko ci seetlu muy sëriñ bi ni mu baaxoo bind rawatina ci mbind mu mujj mi day def ab tarjamaan boo xam ne mooy jiitu xasida gi niñ ko gisee ci jaalibatul maraqib gise ko ci mawaahibu gise ko ci muqaddamatul amdaax gise ko ci xasida yépp day am ab tarjamaan bu ko jiitu ñaari sax léeg-léeg mu defu xasida ba mu yàgg mu dabaatal ko def def tarjamaan bi comme jaalibatul maraqib am na ci tarjamaan gi loo xam ne sëñ bi da koo dabaatal xissa ba sëriñ bu so yaakaar naa ñu bari xam nañ xissa ba nam demee euh, xasida gi amoon na tarjamaan waaye dégg naa ci sëñ Abdurahmaan mu ne ba mu sax dana xissa bi sax sëñ Alaaji Mbàkke muy faral di bind ci sëriñ bi indi na ko ci téere mi mu ne amoon na tarjamaan waaye borom daaru maam na borom borom daaru moo ko dindi bi mu ko dindee it sëriñ bi laaj na ko lu waral loolu mu xamal ko ne ko daal tarjamaan ji ne ci xasida gi wax ji rëy na lool ngir màggaayu xasida gi mu doon barkeelu rek bëgg ñu dindi ko mu doon kumpa bàyyi ko noonu loolu yaakaar naa am na bis may waxtaan fii ci jumaa ji jumaa ji ci eh, suñu kanam ci waxtaan yi ñu doon def ci koor gi bu ma juumut daaw la wala daaw jéeg mën na ñaari at ci ginnaaw même thème bii la woon Euh, am na góor goo xam ne dafa dafa daal di dogale jotaay ba wax ni tarjamaan ba sëñ Abdourahman mii ñu denc fii kenn tudde ko sëñ Abdourahman ma ci Daaru Muxti ci ay loxoom la mujjoon kon loolu day gën a saxal li ñuy wax damaa jàppatut turwa waaye fii ci jàkka ji la nekkoon ci biir waxtaan la ñu dogalee wax ñu lool ne sëñ Abdourahman mu mag mii ñu denc fii ci penkoob jumaa ji yàlla ko yàlla dolli ngërëm kenn tudde ko sëñ Abdourahman male tarjamaan bi ci moom la mujjoon mu doon xasida goo xam ne gu gudd la daanaka jege na ñaar téeméeri bayit téeméer bi ñu ko doon wàññeel suñ bopp ak juróom ñetti fukk ak juróom ci ay abiyaat bi ñu xoolee it ci ahlu tasawuf ni ñuy faral di binde ñoom nga xam ne dañoo am daanaka turux yépp wala yeneen yi nga xam ne sax ay mbooloo lañ yoo xam ne dañoo bàyyi ko ci ay turux ñoom ñëpp dañoo am lu ñu tuddee xasida mawlidiya mooy xasida goo xam ne weeru gàmm gu jotee dañ koy faral di jàng lu baree baree bare bare di ci waxtaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu lu yàgg la ci lislaam taabiona yi daanañ am ay jalasaat yu ñu daa def yoo xam ne léeg-léeg jalasaat jalsa lay doon boo xam ne dañuy waxtaane ghazawaat wala jalsa boo xam ne dañuy waxtaane asamail al muhammadiya yooyu loolu yàgg na ci lislaam kon ñoom ahlu tasawuf ci niñ leen niñ ràññi ko bu baax ci seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo amoon lu ñu tuddee xasida mawlidiya loolu tariixa yépp ko am am na sax bu ci siiw loolu muy burdu nga xam ne mën naa ne li ëpp ci tariixa yi dañ koy jëfandikoo xasida gi xasida mawlidiya la wax nañ ne sax sëñ bu mag bi santoon na borom daaru ne ko maanaam Euh, dundal dundal ñoom daaru bis maanaam mën naa ne altine ji jot dañuy gàmm ci ndigalu sëñ bi la woon ñoom duñ gàmm weeru jot weeru gàmm altine gu jot guddi altine gu jot dañuy gàmm sëñ bi santoon na leen ne leen ci dundal googu ñuy dundal guddi gi ñu ciy jàng xasiida ak jës bu kon xasiida mawlidiya la xasiida ak mawlidiya la xasiida gi nag xasiida gu yéeme yéeme yéeme la ci ay côté yu baree baree baree bare ba ci njëkk mooy dafa nettali ay mawaaxif ay barab ci jaar-jaar yonent bi mën naa ne lu yu baree baree baree bare ci marxala makkiya étape bu makka marxala madaniya étape bu midine mu nettali ci mën naa ne la ya ci gën a fés te sama kalaas gi nga xam ne seenum njàng soriwut am na beneen bànneexu wala beneen yëg-yëg buñ ci amaat boo xam ne xamuñu woon ne ndeke loolu am na ci loolu mooy yëgugu roo gi ak bànneex beeg neexaay bi ak ni muy dundale xol ni muy dundale roo bi ci toppaat mooy dafa fees dell ak i salawaat fees dellit ak i am daax maanaam dafa fees dell ak i julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa fees dell ak i tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci biir étape bu màkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dundam gi yëpp ñaari étape la étape bu Makka nga xam ne douze ans la étape bu Médine nga xam ne ta moom it à xam naa ci onze ans lay tollool nga xam ne woote bi yëpp boo xoolee vingt trois ans la plus quarante ans yi bi mu amee quarante ans lañ ko jox nubuwa gi kon day mel ne quarante boo ko boolee vingt trois soixante trois la lay jox mooy dundam gi. siira nag bu ñu ko waxee mooy luy nettali dundug yonent bi nam nga nee jamono ba ni mu wàcceeb liggéey. téere bi comme niñ ko baaxoo xamee mooy buy nett nettali lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi dafa tàmbali lu jiitu ñëw yonent bi comme ni ko téere séera yi nettalee loolu la ñuy tuddee irhasaat ci arab loolu du mojisa maanaam kiimaan la goo xam ne nii moom irhasaat lañ koy wax ci arab waaye lépp kimtaan la maanaam daal ci gën a leeral mooy day mel ni suñu borom day am lu day day leen waajalal téeñ bi ngir yan bi mu leen bëgg a yan loolu ñu bari ci yonent yi amoon nañ ko yonent yàlla Isa am na irhaasaat yonent yàlla Yaxya ca xisaam ak digganteem ak euh, Zakaria ci ni ko suñu borom doon nettalee suratu Maryam am na irhaasaat yonent yàlla Ismaayil yonent yu bari irhaasaat mooy daal loo xam ne du kiimaan waaye lu jiitu yonent gi lañ ko gis loolu nag borom xam-xam yi nee nañ bu dee yonent bi nag moom da cee am loo xam ne. lu spécial la ñetti xeet la ci am boo xam ne nii xablal wilaada la lu jiitu muy gane jamono nga xam ne ci la yàlla commencé di yëglu ak di wane daal ne yonent bi mooy ki gën ci yonent yi ca dana ñëw am na ci téere bi bu ñaareel mooy yoo xam ne nii dafa ànd ak judd gi ñëw nga xam ne bi jamono ji muy ganee jamono ci la ñëwaale bu ñetteel bi nag mooy ginnaaw ba mu ganee jamono ba noppi lu jiitu muy nekk bu yónnante maanaam digg diggante gan ak jamono gi ak yónnante gi loolu lépp téere bi tudd na ko te xam nga ne nettali kiimaan dafa baax dafa kiimaan nag yu wér laa wax ndax loolu day dolli ak ngëm ca day tooyal xol maanaam moo xam kiimaan gi ak karaama la moo xam mujisa la dara nekku ci ci ñu di ko nettali bu fekkee ne ndax loolu suñu borom da ko bàyyi xel lool da ciy nettali lu bare bare bare bare ñu baal ñu ci kàddu gi sax bàyyi xel gi maanaam da koo suñ borom da ko yitteel laa bëgg wax sax euh, sëñ bi boo xoolee ci xasiida gi mën naa ne nettali na ay kiimaan yoo xam ne nii moo jiitu maanaam ñëw jamono yonent bi sallallahu alayhi loolu lu yaatu la ci xasiida gi bokk na ci muy bi nga xamee ne sunu mboroom dajale na ruu yi dajale wax ne alastu bi rabbikum ruug yonent bi sallallahu alayhi njëkk tontu am na benn saxaabi yi bu ñu wax euh, masiratul fajr dafa laajoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mata kunta nabiyan waaye yow kañ nga doonub yonent mu ne ko nekk naab yonente wa aadamu wa aadamu bayna ruuxi wal jasadi sama yónnante bi ko bi ma ko yàlla yi def booba aadama amagut sax mi ngi yoon ci étape diggante ruu ak yaram yi ñu di ko defar boo xoolee sëñ bi dane salli wa salli man ala man xat ajaaba bi balaa foofu la yëf yi tàmbalee kiimaanu yónnante bi bi mu koy wax ci téere bi te li ci gën a yéeme mooy kiimaan gu muy mën di wax da koy ubbee julli gu màgg ak ak sëlmal daal di dugg ci xissa bi nag moo xam benn baat la ci wax wala ñaari baat nga dem gëstu ji fekkaat ko faneen mu gën a yaatal kon ni ñu tuddee xadis boobu loolu mooy li ma waxoon léegi ne irhaasaat yi am na ci yoo xam ne moo jiitu ñëw jamono yonent bi sallallahu alayhi bu ñaareel bi nag mooy yi nga xam ne dafa ànd ak ñëw jamono bi foofu moom dafa yaatal ca nii ko sëriñ bi nettalee ci gës bu boo demee ci téere yi ko jiitu woon lu mel ne taarixul islaam li imam zahabi wala al bidaayatu wa nihaayatu bu ibnu kasir irhaasaat yi sëriñ bi tudd yëpp nettali nañ ko sëñ bi nee na xawat xawaarixa badat anirwaati sabatat ka misli naarin ut fi at mahamiha i daqami sallallahu alayhi na ay xawaarix ay xarbaax yoo xam ne nii jële nañ ko ca nettalikat ya ca yëpp a sax lu ci mel ne sawara soosu nga xam ne dafa fayoon tey boo demee ci téere yooyu ma tuddoon léegi ne ñoom dañuy nettali xar baax yooyu nee nañ sawara soosu faris la nekkoon maanaam perse perse yi ca ñoom dañuy wax ci siira naan ci wax ci taarix naan boo xam ne nee nañ sawara sa am na junni at fayut ba ñoom sax dañoo mujj di wëlbatiku di jaamu sawara si naan est-ce que sawara si du yàlla ab taw wala ndox du ko fay ngelaw du ko fay day bërëx bërëxi rek léeg-léeg sax ñuy def ay rendi di ko indi ci sawara sa tiim ko di ñaan sawara soosu force la nekkoon moo taxoon booy jàng ci taarix dañ naan la humul majuusi yun ñoom ay majuus lañ majuus mooy ñi nga xam ne dañ daa jaamu sawara guddi gi yonent bi ganee jamono bisub altine cinq cent soixante cinq cent soixante-dix miladiya ci juddug Seydina Isa bisub altine ci atum ñay ya bi ga bi yonent bi ganee jamono rek sawara sa daa jékki-jékki fay ne xamaj fay kenn xamul lu ko fay loolu waa Faris gis nañ ko wa ayni saawata lati xat azumat wa jallati lil fursi xablal millati wa suyirat kal xadami kasaalika it aynu saawat aynu saawata bëtu ndox la woon boo xam ne mii moom it ci côté furs la nekkoon nee nañ sax bëtu ndox la boo xam ne matoon na ñaar fukki kilomètre ndox mi mu ndox suñu borom xéewale woon nañ ko mu nekkoon ndox mu sell ndox mu neex moo xam ne ni ñoom àggoon nañ ci ndox ma sante wuñ koon yàlla waaye dañ fa doon moyee yàlla mooy yàlla bu ñuy def rek ndox ma lañ koy def bu ñuy njaalo bu ñu joxante ay rendez yoo xam ne ni lu jëm la ci carte wala lu demee nanu foofu lañ ko doon def mu nekkoon bëtu bëtum ndox boo xam ne suñu borom moo leen ko xéewale woon waaye bi yonent bi sallallahu alayhi nga ne jamono moom it daa daal di fay kon ni àdduna yonent bi sallallahu alayhi xéewal la ci ñenn ñi waaye noonu la nekkaat gàcce ci ñenn ñi comme ñii ma tudd léegi ak ñi ñu tuddagut même Iblis sax ñam na bu baax a baax a baax a baax bi yonent bi ganee jamono ndax daana dem ba ci nee nañ daana dem ba aras muy dégg ni xalima gi yëngoo ak ni malaayika yi di wax bi yonent yàlla Aysa ganee jamono dañ ko éliminé ñeenti asamaan yi mënu faa yéeg nga xam ne man comme juróom-ñaari la mën naa dem ñetti asamaan bi yonent bi ganee jamono dañ ko doon xaañ ay jum turida fiha bi nujum ani samawaati rajim wa farraxa siran yulim bi xisbihi saawakami malaayika yi ay jumi biddiw lañ ko doon xaañ mënatut a dégg dara ndax lan doon dégg loolu la doon wax njabarkat yi ak gisaanekat yi ak ñi doon jaamuy xéram bu ko defee ñooñee léeg-léeg ñuy wax muy tombe ñu jàpp ne ñooñu it li ñuy wax dañoo am maanaam silla ak yàlla wala dara ci mbaax fekk saytaane moo leen doon wax bi yonent bi ganee jamono loolu mënatu ci am dara. li ci gën a yéemu nag mooy wala bokk na ci li ci gën a yéemu nag ca la ca feeñoon mooy nuurun adimun nuurun adimun xad bi bihi xusura xaysara man kaana fii ummil xura makkata xayril xurumi loolu soxna Amina waxoon na ko saxal na ko boo demee ci kutubu siira yi da nga ci fekk soxna Amina bi mu amee jafe-jafe ak alimatu saadiya mooy ba xaadisatul euh, dégg maam euh, xarug dënn ga ba mu xewee xarug dënn ga yonent bi sallallahu alayhi mu ñëw di ko delloosi mu di ko laaj tax nga bëgg koo delloosi nee na mu bëggoon mu bëgg a nëbb loolu daal ne ko du dara mu ne ko jigéen ak jigéen da wax ma lu ko waral mu nettali ko xisa bi mu ne ko lool du dara xanaa xamoo ne sama doom jii lu ne gis naa ko ci moom lu ne gis naa ko ci moom bokk na ci li ma gisoon ci moom mooy lu jigéen di yëg bu tollee diggante daaw ma ko yëg man xam naa ne dana dooni dara bu ëllëgee bu dee loolu rek la moom amul benn jafe-jafe man nga koo téyewaat àgg ca sax xadis bu gudd la àgg ca sax ba ne ko même bi muy judd sax dafa àndoon ak leer goo xam ne dafa génn ci man ànd ak jëmmu ci leer goo xam dafa jékki-jékki ne tay mag leer ba leeraale xusóoru xay sara Saam jàpp tund woowu yépp mu leer leer goo xam ne dafa mujj sax waxuma la saam ak foofu nga xam ne mooy monde arabe bi yëpp sax waaye dafa mujj dem ba force leer ga di fa di fa di fa jolli leer googu jolli gam jolli force sax àgg na ca ba iwaanu Kisra mooy palais Kisra bi nga xam ne nee nañ pale ba am na ay xuruuni xuruuni xuruun yoo xam ne nii rapput dara sikku ca buur bu ñëw da ngay dund ba faatu bàyyi ko fa ñëwaat pale ba àggoon na ci yéemoom mooy boo koy xool miir bi day mel ne luy laal asamaan ndax tabax ba nem yéemoo bi yonent bi ganee jamono leer ga da doon rëngi rëngi tabax bi mu yëngatu di rëngi rëngi ba fukki bàngaas ak ñeent daanu ci iwaanu kisran sadaha fiiha wa xablu rafiha samkon lahoo fartaxaha nax wa samaan mu karri xatta sarirun kasara même buur bi sax néeg bi mu nekkoon lal bi mu toogoon da doon rëng-rëngi lal bi di yëngatu di yëngatu yëngatu boo xam ne xamuñu luy yëngal lal bi xatta sariirun kasara lal bi sax dafa mujj damm li ajli hawlin ixtara min nuuri afdalil wara rabbi xoolal li muy li rab bi rabbi alayhi sallimi ak julli la ubbee woon ak julli la tëjewaat loolu la wuuteeg yeneen nettalikati siira yi maanaam yow bi ngay jàng siira sax yaa ngi julli ji ci julli ci yonent bi dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe ci jaamu yàlla yi sëñ bi sax àgg na ci ba ne ku amul seexu tarbiya mën nga cee jàpp loolu la tuddee al irhasaat mooy bunt bi nga xam ne euh, sëñ bi nettali na ko ci jësu mu feeñ ci bu baax a baax a baax a baax loolu nag ni ma ko waxee léegi boo demee ci téere yu mag ya mu yi ma tuddoon ci tàmbali bi léegi ak yi ma tudd da ko cay fekk ñu yaatal ko ci bu baax a baax a baax a baax te mosuñoo gis même euh, burdu mu am solo mii da nga maam ak téere siira yu am solo yi nga xam ne ahlu tasawuf dañ koy jëfandikoo nii sëñ bii bind duñ ko bind sëñ bi kon man damay faral di wax naan sëñ bi bëgg gi mu bëgg bi rek karaama la maanaam bëgg gi jëmmi bëgg gi rek maanaam bëgg gi dafa dafa dafa dafa xotti baax day feeñ ci mbindam day feeñ ci jëfinam day feeñ ci lépp